marhaban cey Sénégal wàllum politique coow wàllum yoon ak yoonal coow yéene kaayu enquête daal dina xëyee ni ki tey ab coow lu rëy lu tabbi ci wàllum justice bu Sénégal suñu naatango yi ne leen waralu ko lu dul xëccoo jëm ci ay poste ci wàllu magistrature bi ya lu ni mel bu ñu sukkandikoo ci su naatango yi moo daal di jur ab coow lu rëy ci biir magistrature bi ya mu daal di koy duppee un gros malaise ah kay ndaxte bu ñu sukkandikoo ba tey ci yéene kaayu enquête yenn poste de responsabilité yi nga xamante ne dañu fay jël rek benn magistrat ni ko fa dang mel ni kuñ fa fàtte jëm ci yàggaay jum fay def nag moo daal di ñu bëri ñu yëngu ci wàllum yoon ak yoonal rawatina nag ci ay poste stratégique logique yow yi les nag ñoom ñooy sakku ñu daal indi bu yemale ak itam wàllum transparence ci nu ñuy gérer carrière magistrat yi yéene kayu enquête mu ñu xamal naan am na sax yenn ci ay magistrats yi nga xamante ne ya dañ leen jàppee ay nomade maanaam mënuñu fexe ba yàgg ci benn bërëb déedéet ñu ngi leen di tambamballoo ci diggante ay tribunal te ñu jëlee leen fii ëllëg yóbbu leen feneen ci jamono ji nga xamante ne ñenn ñi ñoom ñu ci yenn ci ndax duñ fa yëngatu te mënees nañ faa nekk ci diir bi nga xamante ne yaa sax mu mel ni ñu ñu fa fàtte magistrat yi nag mbir bu ni mel la ñu bëgg mu daal di dakk njiital kuréel gi jaboote magistrat wu Sénégal yi ci biir yéene kayu laas Souleymane Teliko di fay fësal ñàkk àndam waaye itam naqar ju mu amee ci ñàkkum transparence mi ñu nemmeeku ci magistrature bu Sénégal waaye itam yenn ci ay rëkk-rëkk di bolokaas mi ñu nemmeeku waa ci liy gàllankooral ñenn ñi yaa ngir ñu mën a jëm kanam wax yi noppi nag ñàkkum juntuwaay di ay infrastructure yu ñu nemmeeku raay bi nag fu mu tersee nag ci seen ay jafe di ñàkkum personnel ngir mën a matal seen liggéey nu mu gën a mucc ayiba njiital UMS ba tey mooy naqarlu mbir bu ni mel la ci biir yéene kaayu laas yéene kaay source a moom jàngoroy coronavirus bi le mooy woy ba tey di ko yitteel la suñu naatangu yi ne ah, sénégalais ginnaaw bu ñëpp toogee ci kaw nen test bi ñu doon amal la ci benn doom bu Gambia mi bàyyee ko woon fale ci Italia wàcc ci aéroport international Blaise Diagne a Diass résultat yooyu le test nag daanaka fësal nañ ko Gambien boobule mënees nañoo jàpp ne yaa ah, bu ñu sukkandikoo ci test yi yaa amatu jàngoro coronavirus alhamdulillah moom mi ñu évacué woon ci centre hospitalier universitaire bu Fann ay test ñu doon amal ci moom dafa mujj rek daal di négatif waaye du tee ba tey bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi fas nañu amalaat itam yeneen test ci moom waaw xanaa mbir moom dafa leerul ba tey ak nu mu mënti demee daal suñu naataango yi ñu ngi xam le ne yaa Gambien boobu la waruta tax be sénégalais yi daldi panique paniqué jamono ji manam ñepp jaxaso wa ab température mo yëkëti yëkkatiku won rek toll won ci fanwer ak juroom ñett ci ay degré manam 38 degré ya waye lu dul loolu mom du lenn lu rax ci mom jëm ci biir jàngoro coronavirus virusu e mandat mi dugg jamono jile ay kangam politique bokk na itam ci li mboolem yéen kay xeyandor ni ki tey ya Sud quotidienne ya APR di alliance pour la république bu Parcelles asinia ya na de xiiroog ngaayo mi tax lañu ñu ko wa ci boobule commune bi nga xamantene ministre des affaires étrangères Amadou Ba falay ab assemblée générale lañu doon amal ci boobule commune bu ñu sukkandiko bi te yaa ci yéen kas sur quotidien waaye li fa mujjee xew nag doy na waar ah kay benn assemblée générale ñaari résolution moom la ñu nemmeeku ci li xew ni ki démb ci Parcelles Assainies ci diggante ay apérista suñu naataango groupe Sud Communication ne yaa résolution bu njëkk jëm nag ci biir assemblée générale li muy fësal mooy nee nañu ñoom daal bëggatuñu gis kii di Amadou Ba muy wéy ba tey di des ci seen bile parti di APR ñoom daal la ñu bëgg mooy ñu daal di koy dàq ci biti beneen résolution bi moom lu muy fasal moo ñu taxawaalaat beneen kuréel la jëm ci ay responsable apérista ngir ñu gën a dëgëral seen taxawaay foofu la ci Parcelles Assainies ya cey li suñu naataango yi la quotidienne ya wax ji xam ngeen lan la mooy nekk Amadou Ba Miléa moom la tam jamono jile kon ci biir parti wu moo tax nag ñu fas yéene fippu ci kawama te suñu naatango yi jàpp nañu ne yaa Mbaye Ndiaye responsable APR mi yeewoo itam ci boobu la bu Parcelles Assainies ya moom moo nekk ci ginnaaw mbir bu ni mel la ngir jéem a xool nees war a def ngir mën a galgal ki nga xamante moom mooy Amadou Ba waaye du moom dong ndax itam amaat na yeneen kàngam yu nekk jamono jile ci biir bile moo taxit yéen kay la ko ti jeex day doog a tàmbaliyaa li ko waral du lenn lu dul bii la troisième mandat njiit réew bu Sénégal Macky Sall ba ci biir yéen kaay la tribune jëm nag ci ñuy yëkkati ay kadduwa ci biir seen boobule parti yaa jëmee ko nag ci biir troisième mandat njiit di Macky Sall ah ndaxte Mame Mbaye Niang ma ngi xam leen ne yaa ñëpp ñu ciy wax dañ leen war a ñoom ñëpp ci biti. ah kay dañ leen war a wàccee ñoom ñëpp ci seen ay poste foqorti ay ndombol tànk yu leen jébbal la raay raayewul de lim na seen tuura Mame Mbaye Niang ne Mahammed Boun Abdallah Dionne di secrétaire général de la présidence Aminata Touré njiital conseil économique social et environnemental ak Amadou Ba le président Macky Sall def leen war a teg ay daan jàngeen jëf